Djibril Wely maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors ngay secrétaire général ligue sénégalaise bi nga xam te nag mooy xeex lépp lu jëm ci wàllum tabac euh, tey jile nag muy bés gi nga xam ne ñoo ngi ko jagleel wala di xeex lépp lu jëm ci wàllum cigarette si euh, ban jàngat nga ci am rawatina le fekk que fi mu toll nii euh, muy gën di persister. jërëjëf tey dafa nekk bés bi nga xamante ni Sénégal dafay xeex dafay célébrer bés bi nga xamante ni dañ koy xeex cigarette ci àdduna bi yëpp. muy le 31 mai at bu ne organisation mondiale de la santé at bi dafa jagleel li nga xam ne moom mooy euh, comme thème ñu fexe ni ñuy protéger xale yi ci li nga xamante ni moom mooy ingérence de l'industrie tabac bu ne ingérence de l'industrie tabac mooy tactique ak euh, euh, nax naxe yi nga xamante ni industrie tabac dañ koy def pour mën a am xale yi loolu loolu nag lu ci ëpp ñu ngi koy jaarale ci li nga xamante ni moom mooy ay marketing ak également surtout sur internet wala ak ay film yu demee noonu donc di wax ni rek c'est une occasion pour ñun ñu mën a revenir un peu sur euh, euh, lépp jafe-jafe yi nga xamante ni donc cigarette da koy joxe euh, ci àdduna bi mais particulièrement ci xale yi parce que gis nañ ni xale yi ñooy ëpp ñu koy jëfandikoo bu ñu jëlee chicha jël euh, ay pëf ak yu demee xale yi ñoo koy ëpp li ñu koy jëfandikoo et ñu ngi koy jëndee ci li nga xamante ni moom mooy internet parce que xale yi dañoo présent sur les sur les réseaux sociaux boo jëlee daanaka 67 pour cent donc euh, produit yi ñu ngi koy jëndee ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi et boo gisee également euh, ci àdduna bi ni ñu koy toxee dafa bari parce que daanaka 37 millions xale yooyu noonu ci toll ci. Euh, fukki at ak ñett ba fukki at juróom donc ñoom ñooy jëfandikoo loolu ci àdduna bi donc muy vraiment phénomène boo xamante ni bu doy waar la donc moo tax euh, euh, journée bi nekk une occasion pour ñun non seulement sensibiliser mais revenir vraiment ci lépp li nga xamante ni donc cigarette da koy indi ak ay jafe-jafe mais aussi demander également au gouvernement ñu fexe vraiment baral xeex bi parce que en tout cas loi 2014 révisé nañ ko euh, donc validé nañ ko en comité technique donc après loolu maintenant dafa war dem comme conseil des ministres après avant muy dem assemblée nationale donc ci loi boobu noonu euh, dañ ci dugal lépp li nga xamante ni moom mooy xeetu cigarette yu bees yi parce que nekkul woon ci loi de 2014 loolu moo waral euh, xëy na mbir yi xaw a yéex tuuti mais ñu ngi am yaakaar ni. ak euh, autorité yu bees yi ñëw dinañu baral mbir mi bu ko defee ñu mën a wàññi bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy prévalence mën a également xeex li nga xam ne moom mooy cigarette électronique ay pëf ak ay chicha yu demee noonu. gi euh, bëri na ci ba ci paquet gi nga xamante ne muy paquet cigarette si dañ ci def sax ay image yi tax rek ñenn ñi mën a éviter di tux waaye terewul euh, ñu ci bari ba tey ñoo ngi koy jël di gën a baral li nga xamante ne mooy tux mi pour yow lan moo ko ko waaw xam nga loolu yëpp dafa bokk ci ay mesures yi nga xamante ni dañ koy appliquer parce que il faut nit ñi d' abord comprendre ni cigarette drogue la donc d' après organisation mondiale de la santé da ko considéré comme drogue boo xam ne drogue bu métti la parce que dañuy faral di wax souvent li la ci dugal génnewu la ci. donc euh, moo tax euh, vraiment nit ñi di am jafe-jafe vraiment pour libérer wu ji donc met moo tax également si suñu ay loi dañuy def li nga xam ne mooy ay mesures dissuasives mooy fexe ba décourager ñi nga xamante ni ñoom ñooy tukkat yi ni ñu koy defee nag dafay bëri façon mën na nekk si yokk njëgu cigarette bi mën na nekk également ci def ay nataal euh, fexe ba paquetu cigarette yi changé mooy li ñu li ñu def nii actuellement donc euh, ñaari face euh, ñu ngi koy utiliser def ci ay nataal yoo xamante ni ay feebar pour que kat bi xam ni vraiment lii moo koy xaar donc buy jëfandikoo li nga xam ne moom mooy tabac. Hmm. boole ci également ay message de de sensibilisation donc loolu yëpp c'est c'est des c'est des mesures yoo xamante ni boo ko boolee hmm. donc dina mën a am impact mais boo ci defee benn nga bàyyi yeneen yi rek. day xaw a day xaw a des tuuti. ki nga xam te ne nag mooy docteur Abdoul Aziz Kassé jotoon naa def sax ay révélation jëm ci euh, tux mi ne daal euh, fi mu toll nii bëri na ci ay nit yoo xam ne ñoo ngi ci ñàkk seen bakkan rawatina ay ndaw yoo xam ne ci euh, treize ba fukki at ak juróom la ñuy toll ñoom tamit ñuy tux cigarette loolu ban jàngat nga ci am. jàngat bi ñu ci am rek mooy wax dëgg yàlla wax ni loolu moom lu ñëpp xam nañ ko lu doy waar la loolu vraiment bu ñu deful dara c'est-à-dire bu ñu toogee rek croiser bañ a jël ay mesures loolu dafay yokk ci at yi di ñëw loolu dafa leer parce que OMS moom moo ko njëkk wax moo tax nag vraiment ñun suñu en tant que suñu rôle en tant que euh, acteur de la société civile mooy ñu fexe non seulement nit ñi xam lan moo nekk ci biir cigarette mais ñu fexe également euh, parent yi si boppam ñuy gëstu bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy Euh, seen i ay doom sac yu ñu utiliser ak lan la ñuy jëfandikoo ci produit ah donc dafa nekk phénomène boo xamante ni euh, xëy na ñu bari xamuñu ko mais bon comme ñu euh, nous sommes informés donc lu ñu mën mooy vraiment euh, sensibiliser mais également alerter l'opinion au, euh, au niveau national et international pour que vraiment ñu mën a jël ay mesures très rapidement. Mm. parce que bu ñu deful loolu rek euh, yaakaar naa ni euh, chiffres yi dana gën a yokku te bu boobaa wax dëgg yàlla du du baax ci ci réew mais lan mooy waral blocage bi ci loi anti tabac rawatina problème bi nga xamante ni moo jëm ci application gile ndaxte gis nañ ne ndaw ñi fi mu toll nii dañ koy utiliser bu baax a baax. waaw blocage yi moom li waral en général mooy ingérence de l'industrie tabac parce que xam nga jaay rek ngay dawal nu la neexee donc voilà ñun dañuy wax ñoom état yi di jël ay mesures mais ñoom tamit voilà dañuy protéger aussi seeni ay intérêt voilà mais fii moom je pense que pour jusque là euh, amul blocage c'est juste peut-être changement gouvernement bi bi bi moo ko waral parce que euh, loi bi euh, réviser nañ ko ba ba mu jàll en comité technique lu yàggul dara donc je pense que avec changement gouvernement bu bees bi moo tax ma ne woon sànq ni Euh, régime bi donc teg nañ ci seen loxo ñaari projet yoo xamante ni yu am am solo la pour suñu soit suñu pour protéger un suñu jeunesse bi su jiitu mooy loi bi ñu révisé moo nar a dem euh, xeex li nga xamante ni moom mooy chicha tere ko carrément ci Sénégal mais aussi les produits euh, électroniques mm-hmm. donc loolu je pense que lu am solo la bi ci topp mooy également fexe am li nga xam ne moom mooy taxe parafiscale mooy fexe njëgu cigarette bi donc ñu yokk ko utal benn fonds boo xamante ni dina permettre également ñuy mën a continuer vraiment Euh, appliquer donc les dispositions de la loi, mais également euh, financer un peu les activités ci euh, surtout avec les maladies non transmissibles parce que tabac facteur la ci bu am solo donc ñun suñu rôle mooy vraiment def plaidoyer continuer plaidoyer bi comme état continuité la ñu continuer plaidoyer bi pour que vraiment autorités yu bees yi nga xamante ni yeeg ñëw nañ ñu fexe baral mbir mi jàllale ko en conseil des ministres mu mën a dem assemblée nationale parce que commencé nañ déjà liggéey ak député yi pour sensibiliser leen pour que vraiment bu loi bi ñëwee assemblée nationale ñu mën ko jàllale parce que euh, objectif yi mooy vraiment protéger suñu ay doom protéger vraiment xale yi euh, surtout vraiment ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di am ay jafe-jafe ci li nga xamante ni moom mooy tabac. alors yaa ngi ko doon wax sànq li jëm ci wàllum chicha mu mel ni nag phénomène bi dafay gën di persister yi tamit. waaw phénomène bi dafay gën di persister parce que amul mesure amul loi amul dara lu yi ñu ngi koy jëfandikoo parce que effet de mode la koy foowe ñii ñu ci filmé di ci photo ak yu demee noonu dem ci restaurant yi di ko def donc loolu nag yaakaar naa ni li ko mën a tere mooy jël ay mesures wala amoon na benn mesure bu ñu jëloon pour interdire donc la chicha en 2018 mais mujjul jàll parce que lobby tabaay aussi duñ la bàyyi noonu moo tax comme defuñu koon ci loi 2014 bi donc la loi révisée la bañ ko defee ñu fexe vraiment dugal ko ci euh, bu ko defee vraiment mu nekk quelque chose boo xamante ni ce sera définitif quoi problème de chicha waaye fi mu toll nii euh, ligue sénégalaise euh, bi xeex wàllum tabac lan ngeen ci def euh, jamono ji ci li jëm ci li nga xam te ne mooy cigarette si. waaw li ñu ci def bëri na parce que ñun suñu premier rôle mooy sensibiliser donc dañuy dem ci école yi sensibiliser euh, xamal nit ñi lan mooy cigarette jafe-jafe yu muy am mais au-delà de ça également dañuy travailler surtout sur le plaidoyer euh, fexe vraiment ba autorité également donc euh, xamal leen ko mais également ñuy jël ay mesures ci ci demee noonu mais également liggéey nañ bu baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy la le nouveau projet donc de loi révisé ba intégré ci lépp li nga xamante ni donc nekkul woon ci le projet de 2014 mais ak également les les nouveaux phénomènes yi nga xamante ni agsi na mooy chicha ak produit du tabac nouveau émergent comme ni koy woowee donc lépp li nga xam ne en tout cas nekkoon na ay faay ci projet de loi de 2014 bi fexe nañ ba def ko ci loi bu bees bi bu ko defee bu une fois comme mu jàll euh, en tout cas dinañu dimbali ci lu bari euh, vraiment ci xeexum cigarette fii ci Sénégal. yooyu secretaire général bu ligue sénégalaise bi xeex wàllum cigarette si ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.